tudd Babacar Sadir Seck nekk maireu HLM bi affaire bi amee ba léegi maire HLM toogul parce que toogul moo di ne première li ñu waroon njëkk def moo doon jàppale structure de santé yi muy am nañu poste de santé am centre de santé donc am médecin chef am beneen responsable bu nga xam ne ñu koy wax madame mayga moom moo yore poste de santé bi boobu ba léegi ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey bi ñaar la mooy jéem leen a jox ci kemtalaay kàttan bi ñu jotoon am mooy protection mooy yi nga xam ne soxla nañ ko defe naa ne léegi bi ngeen di ñëwaat am na ay gants yu fi nekkoon moom laa leen doon yóbbu léegi ñoom ñaar mais ñun dañ yemul ci ñoom rek parce que fii dafa am post de santé am centre santé am centre de santé douane mais ñun xooluñu ñu que centre santé douane ñi muy faj ay waa HLM la même bu dee faj douane yi donc ñooñu itam dañ leen jox dotation comme ni ñu joxee poste de santé bi ak centre de santé bi su loolu wéyee ñu fexe nag ba li nga xam ne moo jëm ci population bi mooy ñu xool nu ñu leen mën a protéger protéger bi mooy temps yi gis ngeen ne defoon nañ benn commande yàlla def na commande bi teel na ñëw HLM yëpp wërale nañ ko ay bidon de lavage ay espèce su nu mu tuddati euh, fontaine euh, ku dugg biir HLM léegi da ngay raxasu teg nañ fa agent jox nañ leen saabu donc ku ñëw raxasu soog a dugg biir HLM loolu def nañ ko bu loolu wéyee def nañu ay arrêté premier arrêté bi mooy HLM dafa am marché marché bi di marché bu rëy ñu amit problème ci marché bi parce que marché le bu nga xam ne li fiy dugg ci ay nit doy na kéemaan et fu ne la ñuy jóge nag fu ne parce que bu ma leen ne marché international la ay Malien ngi fii ñëw ay guinée Guinéen ngi fii ñëw Burkinabé ñëpp ngi fi <coughs> donc bu loolu amee te marché bi dafa sës ci biir kër yi donc ñu war a protéger itam waa kër yi suñu demee ba ne ñaar bu ñuy toog nañu am un mètre seen distance boo duggee ci marché bi da tiit loolu moo tax arrêté bi ma jëkk def ma doon ma tëj tali yi interdire ku jaay ci tali yi donc def naa arrêté boobu muy tali bi jugee parallèle bi janoog Cheikh Ahmed Bamba tali bi nga xam ne moo jugee euh, Cheikh Ahmed Bamba jëm euh, jël euh, Muntaga Taal ñaari voies yi jël Léopold Senghor yëpp def nañu arrêté interdiction ku fa jaay mais xam nga xale yi kenn mënu si ñoom dara léegi ñu tegaat ci defaat arrêté pour ne marché bi 18 heures lay tëj loolu bu ko waxee vraiment gis naa ne commerçant yi respecté nañ ko donc léegi nii tey tey tey bi ngeen di ñëw maa ngi def nii arrêté bu nga xam c'est pour fermer le marché maintenant pendant 12 jours

ak service d'hygiène dinañu saupoudrer commune bi yépp marché bi yépp dinañ ko Si suñu paree désinfecte bi ñu marché bi ñu désinfecter marché bi fàtte naa wax itam ne dañuy désinfecter mairie bi désinfecter centre de santé désinfecter poste de santé bi désinfecter école yi ce n'est pas parce que école yi tëj nañ que duñ ko toppatoo dañ ko war a toppatoo ci tëj biñ ko tëjee donc voilà yi nga xam ne moom la ñu décidé

yu nga xam ne moom mooy gérer lépp comité bi commencé dans commencer ci quartier bi lépp lu ñuy joxe fii soxlawul nit ki ñëw ci mairie bi la mairie. laaj mairie bi am comité bu ñuy créer ci quartier bi comité bi nag ñu composé mooy délégué de quartier bi élu yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi délégué de quartier élu imam bi représentant curé bi association sportive yi nekk ci quartier ba

dina dem ba dem ci au niveau national mais li wóor bu wóor fii ci HLM liñu fi arrêté moy dinañu fexé ba nit ñi dañ leen dimbali ci kit bu nga xamné pour yu minimum li soxla sabu lu ñuy ak yoyu pour sen protection pour sen protection dinañ ko def su ko passé, affaire dund bi lu nga xamné ne mën nañ ko ci dinañ ko def dama dul wax nak li nit ñi wax ñi ko yelloog ñi ko yelloowul li wóor bu wóor ku ko yelloo waa quartier bee ko gën a xam ku ko yelloowul waa quartier bee ko gën a xam am naa yaakaar ne kenn du dëkk ci quartier di dimbali waa quartier ba pare di xëccoog ñoom donc loolu moo tax ñun fii yëf yi ca quartier ba lañ ko yóbbu lu ñuy def ca quartier ba lañ koy defee tey maa ngi def nii arrêté yi ci arrêté yi dinañ bind tur ñi nga xam ne ñëpp ñooy composé commission boobu mais surtout lu may ñaan commerçant yi lu ma di ñaan surtout ñu dimbali ñu parce que foofu le lépp ne danger bi danger bi deug deug deug deug mu ngi nek ci marché bi te itam fofu à la décharge aussi des commerçants ñom ñep vraiment lu ci ëpp ci ñom seet ci nañ ma d'accord nañu pour arrêter ñom seen bopp ñom dañ may junj junj pour que ñu gaawantu def lolu donc ku ci nek xam nga légui danger bi nek ci affaire légui lolu moy li nga xamné moom laa doon wax ci li nga xam ne mooy li ñu prévoir ñun waaw du ma fi nekk nag di wax naan dinañ joxe cent millions dinañ joxe deux cent millions déedéet lu fi am population bi lañ koy teg seen loxo population bee koy joxe du maire moo koy joxe lu ñu am daal dinañ ko dajale am naa yaakaar lu nit néeg néeg néeg war mun a bàyyi gumba ki saraxam donc vraiment tollu wuñu temps bu nga xam ne ñun ñëpp nañu wóolunte nañu wóolunte c'est surtout ça

pour jàppale les communes.